mbokk auditeurs yi daleen ak jàmm ci seen émission démb tey ñu ngi leen di nuyu di am mbégte dellusiwaat ak yéen euh, am meneen mbégte dalal docteur Rose Wardini gynécologue la euh, moom moo taxawal mouvement Sénégal nouveau lu ko jiitu aussi taxawaloon na beneen kuréel euh, soobu ci wàllu politique Euh, donc teg tànk ci médecine ak ci politique loolu la ñuy waxtaanee ci démb ak tey xool démb lan moo ko ci dugaloon tey lan moo tax mu yeesalaat indi Sénégal nouveau ak fi réew mi toll docteur ñu ngi lay nuyu di am mbégte dalal la ci démb tey. maa ngi leen di fay di di sant bu baax di di gërëm ci émission hmm. alors euh, docteur Rose Wardini nga présenté wu rapidement si ñi nga xam ne ñu ngi lay déglu bëgg a xam yow yaay kan. waaw man maay donc docteur Rose Euh, di ab euh, gynécologue obstétricien nekkoon fi présidente jiite woon association kuréeli gynécologue yooyu depuis 2001 ba 2011 nekkoon fi it euh, njiit vice présidente kuréel boobu ci Afrique ci gynécologue yi nekkoon fi it vice présidente UPIGO maanaam union professionnelle internationale des gynécologues ci jamono jooju eh, tegoon fi loolu nga xam ne mooy sunu caravane médical yi eh, di fekk askan wi ci dëkk yi gën a sori di leen di taxaw ci seen wàllu wërgu yaram ndax xam nañ ne ngóor gi mun a def yépp ma ci doon ànd ak nag am ak sumay am di jàmm yoo xam ne eh, bu ñu liggéeyee ba weekend bi jot dañuy dem fekk askan wi fañ nekk taxaw leen loolu nag ñu koy def di ko def ci ay ati at gis li xew ci àll bi gis coono bi fa nekk ak ndóol bi ñu samp la nga xam ne mooy mouvement citoyen pour le développement du Sénégal loolu ak léegi am na lu mat ñaar fukki euh, fukki at ak juróom. mouvement boobu fu mu toll. mouvement boobu moo doon wéy ba léegi di di def ay action ndax buñ ne mouvement loolu euh, développé réew mi moo taxoon. taxawu ndaw yi eh, ci seen i seeni liggéey seen i jàng taxawu tamit jigéen yi ndax ñu mën a demal seen bopp waaye di continuer suñ action yooyu nga xam ne ci njàng mi la ci faj mi la ci eh, mbéy mi la ci sàmm bi la loolu yépp ay action yoo xam ne mu ngi dugg ci mi ngi naan politique de développement donc loolu ba léegi tegguwuñ ci suñ tànk mouvement pour la euh, pour euh, mouvement citoyen pour le développement du Sénégal kon mi ngi existé ba léegi. waaw mouvement citoyen pour le développement du Sénégal bi moom la ñu euh, léegi ngénte. Hmm. tuddaat ko tuddaat ko tuddee ko Sénégal nouveau ndax li ñu sabab yépp mooy tabax Sénégal bu bees Sénégal boo xam ne coono yeeg lu ne du ci nekk waaw looloo tax nag ca dimanche ba le ñoo euh, tuddee ko Sénégal nouveau waaye ba tey même mouvement citoyen bi la. d'accord donc euh, mouvement citoyen pour le développement du Sénégal mooy mouvement Sénégal nouveau. Mm-hmm. alors est-ce que euh, Sénégal nouveau dafa am lu ngeen yokk ci mouvement bi fi njëkkoon nekk MCDS def ko Sénégal nouveau wala li ngeen doon def rek ngeen di def. waaw mouvement bi mouvement bi tudd Sénégal nouveau mouvement boo xam ne dafa jublu ci tabax. Sénégal bu bees waaye suñ vision mooy jël ndaw yi boole leen ci processus boobu jël ndaw yi jiital leen responsabiliser leen pour ñu ànd ak ñun ci tabax ab réew moomu waaw. kon da di politique. Euh, politique euh, bu baax bi politique bu am njëriñ ci askan wi ñun loolu lañ mës a def te teggiwuñ ci suñ tànk ba léegi. bokkul ak politique maanaam politique pour dem jël mais dangeen ngeen bëgg a wut jël nguur. waaw mais eh, xam nga ñun li ñuy yitteel mooy eh, liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def ñu ngi koy def depuis lu ëpp ñaar fukki at. te xaaruñ ci kenn utuñ ci lenn lu may yi askan bi lu may cadre de vie bu baax boo xam ne xale yi dinañ ko mën a am jigéen yi dinañ ci mën a gis seen bopp kon nag ñun xaaruñ dara. xaaruñ politique boo xam ne dañuy ñëw pour euh, jéem a seet lu ñuy def ak yooyu ñun li nga xam ne ñu ngi koy def depuis ay at dañ ko def ak suñuy propre moyen te xaaruñ ci kenn ba pare di ci jàngal ndaw yi di ci jàngal jigéen yi ñu mën a demal seen bopp te duñ xaar kenn alors euh, mouvement citoyen pour le développement du Sénégal ngeen taxawal ko wax nga ne euh, yàgg na est-ce que mun nga ñëwaat ci contexte bu ngeen ko taxawalee woon mais aussi lan ngeen fi jot a def lu nit mën a teg loxo. bilan bu am solo lañ fi def ndax defe naa ne yow euh, dajee nañ dajewaat lu bëri yoon yow ak say mbokki journaliste yi yàgg ngeen ma fekk ci terrain bi ma nekk ci li nga xam ne mooy santé bi santé bi nga xam ne dafa sooxe santé bi nga xam ne boo duggee ci àll bi sa yaram daw. waaye tamit ma nekk pionnière ci loolu nga xam ne moo sonnal jigéen yi muy cancer du kol ak cancer du sein maanaam cancer bu butitu njurukaay bi ak bu ween bi booy fàttaliku amoon na jamono jigéen yi ñemewuñ woon def loolu ndax xamuñu woon dara dara dara dañ leen ci yeewul dañ leen ci waxul dara loolu nekk loo xam ne lu doy la ndax dépistage bi moo leen mën a génne ci jàngoro boobu nga xam ne mu ngi leen di geexal donc loolu bilan lañ ci def ndax wër nañ daanaka Sénégal yépp ca rukk-rukkaan ya fekk fa jigéen yi di wax ak ñoom di leen di yee di leen di wax jàngoro bi ba ñu ñemee tey dem defi dépistage dépistage nga xam ne moom moo mun a moo ñu mun a faga moom ci lañ mun a fagaroo ba bañ a am jàngoro bu bon boobu te léegi jigéen yi nangu nañ ko def kon nag loolu rek lu rëy la avancé bu rëy la waaye it buñ ko defee duñ leen ci bàyyi ndax danañ leen accompagner dinañ leen taxaw ba nga xam ne euh, li ñu war a def danañ ko def ba duñ yegg ci jàngoro boon boobu. Euh, dem nañ tamit ci wàllu wërgu yaram seeti ay poste santé yoo xam ne fa ñu doon jaar yépp si dëkk dëkkaan yi dañuy fekk tey poste santé bu doy waar ñu ñëw ànd ak waa askan wi dugal ci sunu doole. defaraat ko ba nga xam ne dina mun a nekk loo xam ne mun nañ fa fajoo léegi léegi du doon am matériel ñu ñëw indi matériel euh, dolli nag ci tamit ay post de santé yu ñu maye ci yenn gox yi. yéen a ko defar. ñoo ko defar sur fond propre. ñaata la au waaw may nañ ci à peu près une dizaine. bu fekkee ne euh, war naa ko ñun disan ci yenn région yoo xam ne dañ doon dem ñu sollicité ñu ñu def fa benn poste bu yem boo xam ne war nañ fa mën a fajoo euh, fekk askan wi bañ mën a dem ba ci ba ci yeneen dëkk yu sori fekk tamit ci formation bu demee ci àll yi mise à niveau personnel bi bu ñu fa jaaree am na ci ay personnel yoo xam ne lu mel ni ci île yi nga xam ne gaal ngay jël pour dem fa ñu fekk fa askan wi former leen par exemple ci lu mel ni échographie nga xam ne jigéen ñi dañ doon jël gaal di dem ba beneen dëkk xam nga ne loolu doy na waar mais fekk am na fekk nañu ñun tamit ñuy former jigéen yooyu ba nga xam ne tey dañ ci am xam-xam boo xam ne jigéen ñi dootuñ jël gaal di dem feneen ak yeneen ak yeneen bilan bi moom bu ñu ko doon wax léegi ci santé defe naa ne dinañ fi toog ba suba. mais développement kese euh, développement nekkul santé kese. à aspect sanitaire bi. lan la fi mouvement citoyen pour le développement du par benn école yi. man na école yi suñ doom yi di jàngee bu école di ubbi dañuy dem fekk fa école yi réfectionné waat ba mu baax. defaraat yenn toilettes yi jàppale xale yi ci ekki ci fourniture scolaire ak yeneen ak yeneen xam nga boo koy lim moom day xaw a bëri environnement bi def nañ ci lu bëri ndax ñu ngi soo seetloo gox yi ñuy dem yépp dañ leen di may matériel assainissement xale yi di mën di set setal ñu leen di yee ci bañ a salteel ñu leen di yee ci taaral fi ñu dëkk ñu leen di yee tamit ci yeneen ak yeneen defe naa ne mouvement bi eh, ci loolu la mos a dox te ci loolu lañ jublu léegi pour xalaataat yeneen anam yoo xam ne eh, dinañ mën a yeggali li nga xam ne eh, wax dëgg yàlla def nañ ko fi te yaakaar na ni buñ ko defee dinañ am Sénégal bees. Hmm, Sénégal nouveau euh, lan mooy seen vision euh, fan ngeen nar a yegg lan ngeen mbëbët a def. à court terme xam nga sànq maa ngi lay wax suñu vision mooy jël jeunesse bi dugal leen ci tabax. ànd tabax ak ñoom jeunesse bi tey dañu nekk jeunesse boo xam ne dañoo yeewu dafa am lu ñu bugg te dañoo décider bi ñu sa lancé cérémonie bi ba léegi ñu ngay fàq fu nekk ndax ñun sax ci université bi lañ gën a euh, defee ay action ndax booy seetlu université c'est le Sénégal en miniature ñëpp nga fa ci région yëpp mm. te xale yooyu tey dañu adhéré ci suñ cause dañu adhéré ci li nga xam ne dañ ko bëgg a def te dañu conscient te ku ci nekk tey li ngay def fii moom ngay yóbbu fa nga dëkk li li ñuy def fii moom ci loolu lañuy sukkandiku pour tabax seen gox fa ñu nekk ndax ñoo ko war a def tey avec un développement participatif jàppal ma jàpp ñooñu dañ ko gëm fi mu nekk te dañu taxaw ko def moo tax ñun suñ vision mooy jël jeunesse boobu jàngal leen jiital leen responsabiliser leen ba nga xam ne tey liñ bëgg ñoo koy def te taxaw nañ ci macha allah. alors ci vision boobu euh, lan ngeen xëy na won ndaw ñi ba tax ñoom ñëpp ñu fàqee euh, fu ne ñëw comme ni nga ko waxee léegi. waaw euh, liñ leen won mooy jub gëm sa bopp xam nga li ñuy wax rek gëm sa bopp. am sa décision am sa engagement te xam ne li nga bëgg a def li nga ko mën a def suñu devise nag justice maanaam lépp lu ñuy def na jaar yoon équité na ñëpp yem ne égalité des chances ñëpp nañ yem ne ku bëggul jàngi na nga uti métier dégg nga euh, durabilité lépp li ñuy def dafa war a wéy ñun loolu mooy suñu devise te li ñuy def suñu approche mooy utiliser nit ki seet soxlay nit ki ñu def loolu lépp ñu ngi ko basé ci l'approche humaine. ñan ñoo nekk ci Sénégal nouveau. Ah, ñu ci nekk comme ni ma la wax ay intellectuel ay cadre ak ay ndaw ak jigéen ñoo ci nekk tey eh, waaye ak beneen beneen taxawaay ndax gis nañ li fi nekk. lan moo fi nekk ñu koy ñaawlu. situation bi nga xam ne ndaw yaa koy vivre. dégg nga ñu ci bëri ñii jàngewuñ ñii amuñ métier ñi daal xamatuñ fu ñuy tourné ñii ñu ngi ci euh, gaal yi di di di di maara détaali di ñàkk seen bakkan loolu ñoom bëggatuñ ko. pourtant teg na programme xëyu ndaw ñi. waaw teg na xëyu ndaw yi waaye tamit xale yi tamit teg nañ seen programme état teg na ko ñu ngi ci ñu nit ñu ngi ci yoon woowu ndax dañoo décider gis nga suñu dëkk bi amul. lu fi ñàkk potentiel yi ñu am fii ci dëkk bi mënuñ ko am feneen tey l'avenir du monde c'est l'Afrique fi ñu dëkk la richesse yëpp fii la nekk gis nga partenaires yi daw yëpp di wuti Afrique parce que fii la affaire yi nekk am nañ ay ressources am nañ gaz ak pétrole am nañ ay ressources minières am nañ lépp lu tax xale yi di war a génn xale yi nañ leen jàngal ñu nekk ay leaders xale yi nañ leen teg ci yoon te xale yi dañoo mën de bu ñu décidé moom dañoo mën te ci yoon woowu lañ de lañ tax fi mu ne. alors docteur Wardini lan moo tax nga génn ci clinique yi euh, ci hôpitaux yi ñëw sóobu ci euh, li nga wax léegi politique mais peut-être la vraie politique pas la ah. politique politicienne lan moo euh, nekk déclic bu tax nga sóobu ci ci li nga nekk tey. déclic bi mooy dama nekk ab docteur di faj. ma war a faj jàngoro yi nga xam ne mu ngi Sénégal donc doxee ci loolu nag xam ne man citoyenne laa fa ma romb yépp gis naa la fa xew aw ma droit man de mënuma ko mënuma ko de ndax dama bokk ci citoyen yoo xam ne bu ñuy tudd suñu dëkk bi wala yu ñu dëkk yenn localité suma yaram day daw kon nag damay jóg engage te dama yàgg engage nag man depuis vingt ans yemuma ci médecine rek yow gis nga ma ci mbënn mi gis na ma ci école yi tey fa fële suma suma dëkk ba bu mbënn amee maay jël suma équipe ak samay pompe dem fekki askan wa fañ nekk loolu kañ ñu ngi may dégg mun nañ ci témoigner ndax ñoom boo fa demaan bu tawee kenn mënut a ndox mi dafay des ba ba ñuy tabaski ca biir ndox ba la ñuy tabaski loolu man mën moo ko seetaan maa doon jël sumay pompe ak sumay moyen ak sumay équipe yónni foofu kon nag docteur Ousseynou ni bi ñu xam yemul ci faj rek day faj ay jàngoro waaye day faj ay ay mbëbët docteur Wade ni mu ngi xalaat ci agriculture bi ndax tey développement dëkk neel éducation benn neel santé boo amee éducation am santé sa biir bi rek nga suur muy agriculture defe naa ne dëkk boobu dina développé te tey mbéy mi dafa nekk lu am solo parce que ñun bàyyi nañ wax dëgg am nañ naaj am nañ ndox am nañ suuf kon nag yaakaar naa ne suffisance alimentaire war nañ ko mën a nekk surtout nag buñ fi tegee ay chaîne de valeur lu ñuy bay transformé waaye lu ñuy utati daaw xale yi góor yi étudiants yi créé li ñuy wax Rosade agro innovation dañu bàyyi seen université yi ci vacances yi au lieu ñuy taxawaale ci vacances yi di dem ci cinéma yeeg di dem ak kii dañu dem béyi yóbbu naa fa lu ma juróom ñeent fukki xale yu góor ci sama tool yi nekk Kaolack. ñuy ñuy bay. alors Sénégal nouveau fan la bëgg a jëm fan la jëm Sénégal nouveau pale ngeen bëgg a dem wala fan ngeen bëgg dem. waaw fi gën ci Sénégalais yi rek fañ bëgg a dem. Hmm. war toog di continuer liggéey bi nga xam ne ñu koy def. fu ñu yegg rek jël xam nga docteur problème bi mooy ñu bëri Sénégal dañuy taxawal mouvement. Mm. di wax li nga wax dañuy def social dañuy jàppale nit ñi euh, mais après bon duñu à la fin sentir euh, peut-être benn constance am na ñoom dem ba ci biir daal di am fu ñu dugg si fa wala bu demee ba yegg yenn niveau yi changé Sénégal nouveau lan la nar a indi parce que bu ñu déggee un médecin mu dugg ci dara dañu naan c'est crédible mm. mais ban garanti tey ngeen mun a jox askan wi lan moo leen nar a ak yeneen mouvement wala yeneen parti politique yi fi nekk. mais li ma doon wax sànq rek la durabilité xam nga danaan ñu ñu cos rek daw seey yi feneen wala fenn. Mm. ñun nag depuis ñaata at ñu gis ñu ci terrain bi faatu defe naa ne jëriñ daje nañ ci lu bari yoon seeyee buñ te ñaanuñ seey fenn nag lu dul fa nga xam ne fa ñu bëgg a yóbbu askan wi. waaw foofu moom bañ fa yeggee moom bu boobaa nag ñu tudd tàlli mm. waaye ñun moom on dans la constance et la durabilité. parce que kuy liggéey depuis ñaar fukki at ak juróom te tàyyi a yaakaar naa ne tey tey bi ko askan wi gën a soxla ci la ñuy gën a engagé nag hmm. waaw ci la ñuy gën a engagé te fa ñuy dem moom mooy fa gën ci askanu Sénégal. d'accord alors mun nga ñëwaat ci sa jaar-jaar en tant que médecin ak euh, euh, gynécologue fi nga jaar ak xëy na yenn jigéen yi ak yu ñu mel. waaw man euh, comme ni ma la ko waxee dirigé woon naa fi. kuréeli gynécologue yi euh, nekk donc euh, ci terrain bi di waxtaan ak jigéen ñi ci seen wàllu wër gu yaram waaye di xeef jàngoro yi nga xam ne mu ngi leen di sonnal waaw dem naa fi tamit euh, ci àll yu bëri di forme yenn personnel médical yi ndax dañu naan nguur mënta def lépp Euh, donc santé bi daal euh, am naa ci tamit ay partenaires yoo xam ne dama leen doon pousse ñuy indi fii ay ndimbal ay équipement di dimbali hôpitaux yi amoon na temps tam ma fiy indi ay partenaires yoo xam ne seeni camion la ñuy chargé scanner ñëw ba fii di fi def ay ay ay caravane mais scanner yu bëri ndax loolu dafa di lu jafe ñun daal euh, fi suma jaar jaar yépp mooy taxawu jigéen ñi ndax li ci gën a bëri ñun ñi ngi doon taxaw mooy ñi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw. ñu nekk en général dans le Sénégal de profondeurs. ma ñun ci àll bi la doon gën a def ay action di taxawu jigéen ñi foofu dégg nga maam suñ demee def caravane médicale ba gis fa ñoo xam ne seen paj mun te nekk ci bés boobu dinañ leen taxaw jàppale leen ñi ñëw fii. ñu taxawu leen ba ñu mën leen a faj wala ñu mun leen a opérer ci loolu lañ doon xëyee di ci gontoo te ba léegi ñu ngi ci gontoo. lan moo tax nga tànn nekk gynécologue pourquoi pas leneen euh, tànn métier bi. waaw nga boo demee bay jeexal médical dina am loo xam ne dina la xaw a dugg tuuti muy en tant que mère nekk jigéen. loolu xawoon na ma attiré ndax ci dool li ma def suma sujet de thèse ci loolu xam ne gynécologie moom wax dëgg yàlla dafa jekk ci jigéen ndax jigéen moo gën a mën a am sensibilité ci moromam jigéen moo mën a gën a comprendre moromam loolu ma ci dugal ba léegi rëccu ma ko. d'accord ci sa carrière médecin lan moo la ci gën a marqué. li ma ci gën a marqué eh, mooy euh, vraiment euh, ak métti ma tuuti mooy coono bi nga xam ne euh, jigéen ñi léeg-léeg dañ koy rencontré bu ñu waree fajo surtout ci àll bi léeg-léeg ñu war a wasin ñu nekk ci ay saret wala ak kii ba léeg-léeg seen bakkan des loolu moom marqué woon na ma te mettit lu woon naa ko bu baax te yàgg naa ci xeex aussi yàgg naa ci xeex bu baax a baax loolu moom marqué woon bu baax. Mm. alors ban euh, amélioration nga jàpp ne war nañ ko indiwaat ci euh, peut-être euh, spécialisation yi. Mm. j'en profite pour laajte aussi sa spécialisation est-ce que yomboon na parce que lu médecin yi di jooytu la. waaw spécialisation bi daanaka ah, ah, encouragé rek médecin yi di gën a yokk seen xam-xam. di gën a béy seen waat ci yenn spécialité yi ndax booy seetlu fii ñun Sénégal. mais Dakar c'était le pôle de la médecine dëkk yu bëri yu mel ni ay Maroc Algérie Tunisie que Mauritanie yëpp fii la ñuy fii la ñuy jàngee donc euh, suñu médecine wax dëgg yàlla ngàcce gaalaama waaye nag dama war a encourager formation bi parce que doyul li ñu am ci ak docteur doyul war nañ yokk formation bi ndax dëgg médecins yi mën a dem ci biir àll bi war nañ décentraliser dëgg yàlla ndax li ci gën a bëri booy seet fii la nekk dakaar région yi bëriwul la fa ne donc loolu yépp tamit ci suñ plan la nekk plan d'action yokk formation bi euh, décentraliser kii def ay l'hôpital ma hôpital yu rëy rëy mais ci àll yi nga def fa au moins ay poste de santé wala centre de santé ndax tey boo demee am na ay dëkk yoo xam ne boo fa demee doo fa gis sax personnel ab matroon nga fay gis muy bàjjenu gox buy jàpp ci affaire yi rek wasin euh, jigéen yi foofu wala yu mel noonu donc war nañ décentraliser war nañ développer nañ favoriser ndaw yi delluwaat ci àll bi exode ñu ngi koy waxee urbain nañ dem nañ jóge ci capital yi di dem ci àll yi ñu développer foofu def fa ak le minimum parce que tey boo bëggee yóbbu ay docteur foog nga yóbbu leen foo xam ne seen doom dana am fu ñu jàngee wala yooyu loolu mooy mooy problème bi tey li ci gën a bëri kàllankoor yépp ci àll yi lay jógee parce que amuñu niveau matériel wala personne de qualité yoo xam ne mu nga fa donc ñun ci wàllu met santé nga xam ne mooy suñu domaine yooyu yëpp ñu ngi ciy xalaat recycler tamit ña nga xam ne ñu ngi ci àll ya bu dee infirmier wala bu dee euh, ab aide infirmier ñu yokk seen xam-xam remise à niveau ci suñu tournée yi doonoon naa seetlu loolu parce que toujours il faut nga yokk xam-xam il faut nga won fi ñu war a yem il nga wan leen seen limite pour que bu amee problème ñu mun a teel a évacuer waaye it ci évacuation boobu nañ am ay yoon yu baax wala ñu am sax ambulance yooyu yëpp ci amélioration yi nga xam ne vraiment bugg nañ ko def mu ngi ci suñu plan d'action. alors ci démb ak tey euh, docteur boo méngalee. Euh, plateau médical bu Sénégal il y a quelques années disons dix ans ba tey est-ce que yëg nga ne am na yokkute. est-ce que ñu ngi avancé. waaw waaw waaw quand même quand même quand même wax dëgg quand même am na amélioration ndax wax dëgg yàlla am nañ ay hôpitaux yu baax yu ñuy def ci yenn région yi loolu am na avancé. waaye tam am na yeneen ak yeneen yoo xam ne euh, suñu professeur yi wax naa ñu ngi lu di décorer ci yeneen euh, au niveau international am na avancé waaye dama ni fa médecine bi nekkoon ñun ñu nekk capitaine toog nag ba yenn dëkk yi war ñu raw loolu man duma ko nangu. kon Sénégal am na fu mu delloo ginnaaw. Euh, tuuti ci yenn yenn domaines yi. wax dëgg yàlla yenn domaines spécialisés yi dégg nga par exemple tey bu ñuy wax ay euh, radiothérapie wala jigéen ñi war a faju ci kii bi man li may privilégié déjà mooy fagaru. balaa ñuy yegg ci loolu parce que cancer moom boo fa yeggee baax waaye nañ fagaru nañ am yenn machine yu nga xam ne lu benn la ñuy am wala ñaaw mais àll yi yëpp nañ fa def ay chimio loolu yëpp tamit dama ne fañ tolloon loolu mooy su dayoo loolu lañ war a def foofu donc euh, ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne euh, ay appareil échographie yoo xam ne tey ci àll yu sori yi wala ci ci île yi ñu ñu vulgariser ko foofu former kii eh, eh, eh, personnel bi su ko defee duñu soxla di évacuer ay kilomètres yi kilomètres e jàngal leen tamit comme ni ma wax recycler leen ñu mën a gérer yenn urgence yu ndaw yi par exemple jigéen bu wasin di saigner am na ay gestes yu ñu leen mën a jàngal yoo xam ne danañ mën a arrêté loolu waaye buñ ko mënta def jigéen bi day sotti di sotti te du yegg fa muy def ak ay détails yu bëri waaye ñun loolu yépp ñu ngi loolu Sénégal Nouveau def ciy taxaw. absolument Sénégal Nouveau nee naa la lu baax rek la ñuy def ak lu ñuy def daal moom mooy seetaat li nga xam ne manqué woon na war nañ ci mën a gën a liggéey waaw waaye tamit ci loolu lañ jublu. Sénégal mi mm-hmm. alors ngeen tàbbi ci làngu politique bi euh, mun nañ ko waxee noonu docteur Rose ni gannaaw bi ngeen tuddaatee euh, Sénégal euh, nouveau mu jóge ci mouvement citoyen pour le développement du Sénégal ngeen ñëw ci làngu politique bi ku ne gis ni mu mel xat lool parti politique yi ñoo ci gën a fës ni ñuy defee politique duma la ko jàngal naka ngeen nar a def ba am seen place ci ci ci milieu boobu. ñun place biñ am mooy yoon bi nga xam ne ñu ngi ci depuis yoon boobu duñ ci wàcc ñii a ngi fii ñii a ngi fële ñun ñu ngi suñ yoon di wéy ku nekk na wéy ci yoonam te def li nga xam ne mooy njëriñu askan wi. mais est-ce que Sénégal gëm nañu façon bi ngeen di defee. waaw mais xam nga ku nekk ak sa gëm-gëm. xam nga ku nekk ak sa gëm-gëm. ku nekk na respecté gëm-gëmam te bàyyi keneen ki li muy def ñun li ñuy def daf ñu wóor na ñun am na njëriñ ci askan wi yoon wi ñu jël dafa nekk yoon wu leer. ñun taluñu ay xuloo xeex ak ay xëccante ñun taluñu loolu temps boobu gis nga Sénégal dañu war a daw à mille à l'heure ñun daal tooñuñu kenn waxuñu kenn xeexuñoo kenn. ànduleen ak kenn dañuy liggéey. ànduñoo kenn peuple bi lañu àndal. kenn ngembu leen si kenn ngembuñu suñu moyen la ñuy demee ma wax ko ca kaw suñu moyen lañ mun a demee luñ mus a demee ak suñuy volonté bon volonté ba léegi. as boobu yàlla ñu ci jàppale ba ñu koy mën a jébbal askan bi te yoon boobu duñ ci wàcc ku nekk nag na am gëm-gëmam mais ñun nañu bàyyi ak suñu gëm-gëm la voie du développement la durabilité la justice et l'équité alors jàngat nga def ci tolluwaayu réew mi tey ah jàngat bi ci ñëpp def rek yéen ci seen bopp li ñuy gis fii mu nekk doy na ëpp na te métti na lii Sénégal mérité ko Sénégal mérité ko de Sénégal ak image ñu amoon ah, ñu ngi koy bëgg a yàq xoolal suñ kilifa diine yi yi fi nekk li ñuy def ak ci li ñuy jàpp jàmm di am ci réew mi rekk ñu bëgg ñuy indi musiba bii loolu tamit wax dëgg yàlla war nañ ci jug bu baax delloo fi nga xam ni suñ valeur yi delloo Sénégal fa ko nit ñi doon gisee ndax dëkk yépp dañuy ñeewoon di naan Sénégal c'est un pays Sénégal daal moo am jàmm waaye cat ak ñooy bëgg a dugg de te lii moom xëy fam ñu jóg ci nu mu gën a gaawee. Hmm. valeur yooyu nga wax tey bokk na ci problème bi gën a mag ci Sénégal ban taxawaay ban projet la ci seen mouvement bi am ak lan ngeen ci jot a def parce que tam du fi problème bu bees. waaw xanaa di di wax ak ndaw yi. di leen di conseiller lii ñuy def léegi léeg di lakk ay bien di yàq waruñ ko def ndax seeni bien la loolu dañu ciy waxtaan ak ñoom di leen di euh, vraiment di leen di conscientiser waaye tamit xeex beeg reyante bi dara jaru ko wax dëgg yàlla dara jaru ko dara jaru ko ñun daal ñu ngi koy méttitu bu baax euh, te di ñu app def un appel au calme di ñaan yàlla di ñaan suñu kilifa diine yi ñu continuer di ñaan ñu continuer di ñu taxaw parce que lii du kanamu Sénégal lii moom wax dëgg yàlla euh, nañ ci gaaw jóg. est-ce que am na lu ngeen jot a liggéey euh, comme bilan immatériel ci wàllu jikko yi wàllu valeur. ci la ñu mës a dox ci la ñu mës a dox ndax ñun dañuy def ay formation yu bëri di jàngal ndaw yi ñu nekk ay leader di jàngal ndaw yi di leen di inculquer ay valeur nga am dignité man dama leen di wax. man de du ma joxe 2000 du ma joxe t-shirt du joxe siège du ma joxe sonorisation da gëm li ma gëm na nga nekk koo xam ne dafa engagé xam naa ne amuloo mais jàppal ma jàpp la. d'accord yow noonu ngay politiquer. ñoo ñu noonu la ñuy politiquer noonu la ñuy politiquer nit ki na am dignitéem nit ki na nga arrêté tàllal loxo. ñu lay yóbbu fu nekk di la watat fu nekk ñun dañ ko def ñun duñ def loolu ñun dañuy jàngal nit ki nga am dignité. ñu won la nu ngay nappee ñu won la na ngay demee waaw mais ñun duñ dugg ci ay joxe ak topp ma sànni ma fii yóbbu ma fii bokk ñu ñu jàngal ni ki mu jommam fit dignité engagement ñu loolu la ñu jàngal xale yi. te xale yi fi mu ne ñu ngi soppeeku bu baax a baax a baax. tey yéen a ngi ci ñaata membre docteur parce que bëri na fi ay mouvement wala parti cabine téléphonique. ah xaw ma ndax gis nga suñu lancement bi ni mais macha allah lay wax membre yi nag moom ñu ngi ci dëkk yëpp. am nañ représentation ci dëkk yi yépp waaye ñu ngi def suñu recensement incha allah da ngeen ci xam dara. est-ce que lu ngeen di waajal lu jege. xam nga ñun nag chaque fois ñu waajal dara. waaye loolu surprise lay doon. 2024 da ngeen bëgg a bokk. waaw loolu buñ ci yeggee rek da ngeen ko xam xam nga toujours ñëpp ak ma koy laaj. mais pourtant nag ah est-ce que lancement bi la wala ngente bi ñu ngente suñu mouvement bi la waaye ñun kam quand Euh, journaliste ñëpp xam nañ ne ñun dañu mës a nekk ci terrain bi ñun duguleet de duguleet de waaye nag ñëpp a ngi laajte ah bu jotee rek da ngeen ci xam dara pour le moment daal ak situation dëkk bi ñu ngi fagaru ci yenn priorité yi. ngénte bi est-ce que du yëgluwaat pour ñu xam ne yaa ngi fi parce que dañu la géjoon a dégg. waa xam nga nag euh, ñun ñu ngi woon ci suñu rukk rek di liggéey ñun moom. ñu ngi woon di liggéey waaye ngénte bi bon Sénégal Nouveau dafa am tamit ñeneen ñoo xam ne dañuy ñëw rejoindre ñu. ndax xool nañ gauche xool droite xam ne fii kat mooy bu dëgg bi. ñan ñoo leen rejoindre da ngeen am ay mouvement yu ñëw ànd ay mouvement femmes yu bëri mouvement jeunesse yi ñooñu ñëpp dañu xam dañu désorienté xamatuñ fi ñu dem donc dañuy oote bés bu nekk. cadre yi intellectuel yi ñëw nit dañu bëgg a bokk ma ne yegg si leen ci jàmm comme yegg si leen ci jàmm nag dañuy ngénte waat seen programme lan la concrètement xam nit ñaa ngi dégg Sénégal nouveau Sénégal nouveau waaw mais suñ programme bi euh, da ngeen ci xam dara ndax programme bi ñun ñu ngi ci fànn yu bëri maa ngi la koy wax sànq ba léegi te ci la ñu doon liggéey ba léegi xam nga tey dëkk dëkk bu buggee développé nee naa la njàng mi c'est une priorité santé bi c'est une priorité ndax ku fajowul doo dem fenn doo mën a développé. waaye tam boo xiifee doo mën a développé te ñun nag sama waay ñun loolu yëpp am nañ ko war nañ ci mën a def ay anam yoo xam ne loolu ñoom ci suñ priorité la bokk ci suñ programme la bokk mbéy mi sàmm mi dégg nga jeunesse bi l'emploi des jeunes l'égalité des chances ndax tey war nañ jox chance ku nekk mu jàngi wala mu am métier. famille entrepreneuriat féminin leadership féminin xam nga fu mu toll tey. mais docteur li ngay wax nii moom la ñëpp di wax. mais ñun dañ koy appliquer. ñun dañ koy appliquer lépp moom la ñuy wax waaye ñun ñu ngi koy ñu ngi koy prouver ci terrain bi ndax tey bu ñu demee tey ba jigéen ñi mun a amal seen bopp demal seen bopp bañ a dugg ci kaar yi xat ak yooyu mais suñu liggéey la ñu ko ñun on est pratique. ñëpp a ngi ko yor. mais loolu lu ngeen si def lu ñu mën a wax leneen lu dul loolu mais jàng bu fekkee ñëpp a ngi koy wax tam nañ ko defee nañ ko war a defee te appliqué ko waaye doo wax rek te toog ñun dañu koy def santé ñu ngi koy def de ndax sàngu nee naa la on a un bilan tey léegi déjà le fait que seulement jigéen ñi ah mun a xam yenn jàngoro ba ci ci fagaru suñ sensibilisation yi ñu def la xaw ma ñaata conférence lañ ci def. tey bu xale yi jógee tey conscient ne semaine bu nekk wala weer bu nekk danañ génnee eh, kii nettoyer suñ dëkkuwaay yi def am na bokk na ci suñ bilan tey bu xale yi góor yi di bàyyi seeni vacances yu neex yi di dem ci àll bi defe naa ne loolu ci suñ bilan la bokk ak yeneen ak yeneen kon nag ñun dañuy appliquer du wax rek dem toog. Maada docteur daa bëgg a bàyyi paj mi dem ci politique bi. docteur du bàyyi paj bi ndax euh, maa ngi suma sama piqûre rek di faj jàngoro yi. alors ñu bëri tamit euh, seetlu engagement wu euh, cadre yu mel ni yéen ñoo xam ne xëy na am nañu métier leneen la ñu jàng naka nga gisee tendance boobu. xam nga ah, boo duggee ci développement rek mënoo yem ci li nga nekk foog nga dugg ci leneen sorof ci leneen dama ne. tubaab dafa naan quand on fait pas de la politique la politique te fera mais wax ci wax ci mooy ban politique gis nga tey boo toogee di wax politique boo ne politique ñu ne wuu man defuma politique surtout man mbokk yi yeeg yooyu parce que quand politique bi dafa yegg. àndul politique bi ñu xam ak médecine. àndul defal ndànk go euh, soxna si defal ndànk. bul wax ne politique politique bi ngeen xam. politique bi ñuy def gis nga nag ñun Sénégal nouveau dañoo bëgg a inverser tendance ba xam ne booy wax politique ñëpp a ciy bëgg a ñëw waaye tey booy wax politique ñëppay daw parce que fi politique bi yem ak ni mu dégradé àndul loolu moom d'accord naa ci ñoom mais tey nañ am courage ëlbati tendance bi ba tey boo ne politique de développement politique sociale politique bi am njëriñ ci askan wi kooku kenn du ko daw waaye politique politicienne bi la ñuy daw. am na ay médecins yu bokk ci Sénégal nouveau bu baax a baax ñëpp a ngi fàq di ñëw ndax moom xam nga boo waxee rek nit boo waxee lu lu yenn maanaa dañ koy comprendre tey li askan wi soxla mooy ku leen amal njëriñ ci ñun ci lañ dëkk. fu rongoñ tuuroo ña nga fa. politique boobu nag dangay taxaw ba ci kaw yëkk ci sa loxo ne dama koy def te bu boobaa sa morom yépp ak si foofu lañ bëgg a yóbbu politique bu ñu waxatee politique ñëpp daaw ñëw waaye fii mu ne boo waxee politique ñëpp di la xeel di kii doo fa bëgg a taxaw da ngay rus sax ne damay def politique. ñu ne Sénégal moo fa ñu rusul ndax ñëpp xam ne politique bi ñuy def mooy jëmale réew mi kanam politique bi fi nekk mooy indi dignité mooy indi lu nekk ci nit ki kon nag dañuy politique. jigéen ñi nga xam ne aussi euh, souvent dañ leen utiliser ci wàllu politique ban statut yéen. ngeen leen jox ci biir Sénégal nouveau parce que wax nga ko sànq jigéen ñi li ñu leen di doyee docteur Rose Wardini mooy yàpp leen ci ay kaar jox leen ay yére ñu ndóole dem tàcc wala dem feesal benn euh, ndaje moo xam ne mobilisation lañ fa soxla ban statut la jigéen am ci Sénégal nouveau. ñu ngi def li nga xam ne mooy yëkkati seen statut mooy promouvoir le leadership féminin ba jigéen ñi xam ne leadership féminin mooy la ferme conviction. de promouvoir la condition féminine jigéen ñi foofu lañ leen teg won leen ñu peese seen bopp xam seen bopp teg seen bopp fi nga xam ne fa lañ war a nekk yëg seen bopp mais jigéen tey mooy fal jigéen ñi ñooy fal donc jigéen war na xam place jigéen lu baax ci foyer bi moo koy def mooy yar mooy togg mooy xëy ay trois heures du matin mooy am coono façon coono bu ne donc jigéen yooyu dañ leen di teg yëkkati leen teg leen ci seen place jigéen ci lu mu dugg mu réussir donc jigéen yi tey war nañ occuper poste de responsabilité bu ne ndax luñ laal mu dem kanam kon nag jigéen yi fi mu ne dañoo jóg takk seen sër dañoo décider dañoo décider ànd ak Sénégal nouveau te fépp foo dégg jigéen ña ngay fàq di ñëw. ah mais docteur loolu da ko wax nii rek mais lan moo ci firnde. ah ah yow invité wuñ la ci suñu lancement bi xanaa te loolu mën naa ko bañ de maa bañ maa bañ ñeneen ñi ñëw de. Hmm. waaw te di ngeen gis leneen leneen nag leneen di ngeen ko gis du yàgg. ñun wóolu nañ suñu bopp. duma taxaw ci ay micro rek naan di jigéen yéen ñi ñëw yow duñ ko déggal sa bopp. incha allah. alors lan la jigéen ñi mën a séentu ci Sénégal nouveau ak xale yi parce que ñaari couche yooyu ñooy yëgal na vulnérable avancement rek avancement liñ ci mën a séentu mooy li ñuy xaar tey boo gisee étudiants yi boo demee université coono ba fa ne ñoom ñu ngi xaar le meilleur ñu ngi xaar loolu yëpp dañ te commencé nañ ko dindi sax ndax ña ngay demal seen bopp ña ngay cotiser ña ngay defal seen bopp ay kees ña ngay def ay ay ay. ay ay activités yoo xam ne dina leen indil kii ba duñ taxawati di di am coono yooyu dama cultiver benn esprit de solidarité ci biir université bi ndax dama ne nit nit ay war garabam day leen di jàppalante seen biir day leen di cotiser seen biir day leen di créer ay activités jël seen xaalis di ci dimbali seen morom yi ñun daal ñu ngi def suñu pexe ndax ñun nag dañu amul moyen yu bëri waaye pexe yi ñuy def de moo gën ci ñoom te la ñuy xaar ëllëg defe naa ne c'est le meilleur ndax bëggatuñ ci Sénégal nouveau lu mel noonu. jigéen yi tamit entrepreneuriat féminin bi nee naa jigéen yi li ngay gis léeg-léeg ñu ngi def seen kees di demal seen bopp nga jox leen as tuut ñu dem ba am ay millions am seen tawfiix am lépp lu ñu bëgg mais loolu lañ bëgg ci Sénégal nouveau te ñu ngi ci. d'accord wax nga ne ci université ngeen gën a accentuer seen euh, ay euh, action ak euh, xëy na li ngeen di doxal est-ce que sénégalais bi nga xam ne jàngul nekk ci ruq-ruqaan ya mën naa gis boppam ci Sénégal nouveau mbaa du intellectuel yi rek médecins yi mel ni yow ngeen ciblé ñu bokk ci ci ci ci Sénégal nouveau. déggoo loo sànq li ma la wax ma ne la l'université c'est le Sénégal en tey xale yu nekk am na fañ bokk ca dëkk ya. mais xale yooyu nga xam ne tey dañ leen inculquer un leadership xale yooyu ci seen bopp ñooy defar fa ñu nekk ña nekk seen mbokk ya nekk ca foofu ci seen àll ci àll ya ñoom danañ fexe def fa ay projet de développement danañ fexe taxaw seen ndaw ya ku ci nekk ku ci nekk le développement doit venir de la base donc ka ci nekk dañ def liggéey ba mu war a def pour que fa nga nekk ñoom it ñu mën a gis seen bopp bëri na fii kuréel yu taxaw ay parti politique ñu naan amul démocratie ndax structuration ba benn nit dafay nekk amul xëy na daal ñoo xam ne am nañu benn décision ci ci ci mouvement bi euh, Sénégal nouveau naka ngeen ko structuré ñen ñooy jiite ñan ñooy jël décision naka lay fonctionner. Sénégal nouveau ci dialogue lañ nekk toujours teg nañ fi ay nit ñoo xam ne euh, dañu am engagement ñu fi technique ñëpp dañu am engagement dañu gëm seen bopp teg nañ fi ay intellectuels comité scientifique comité de cadre yoo xam ne ñu ngi xalaat ci li gën ki suñu objectif ak nañ ko war a defee donc euh, wax dëgg yàlla dugal ci nag ndaw yi ak jigéen yi donc euh, wax dëgg yàlla ñu ngi ci phase boobu te am nañ ci satisfaction bu baax. alors continuité ngeen di def kii li fi nekkoon mouvement citoyen pour le développement du Sénégal wala lu bees tàq ngeen di tegal ci wàllu fonctionnement. waaw li fi nekkoon rek xanaa ñu jéem a xool li ci manqué ñu yokk ko li ci manqué ñu jéem a jublu ci loolu ndax tamit mënoo wax ne amul dara lu fi baax am na lu fi baax kaa mais am na lu des Sénégal nouveau ci loolu nag lay gën a saytu anam yoo xam ne bu ñu ko defee eh, incha allah. dina nekk loo xam ne lu bees la dina nekk loo xam ne lu gën ci réew mi la. dialogue bi ñuy wootee Sénégal Nouveau gis na ci boppam. waaw xam nga dëkk buy dox dëkk démocratique buy dox war nañ di dialoguer ndax boo dialoguer solution dina ci génn kon nag ñun bu ñu ci boolee dinañ ci ñëw indi ki suñ xalaat ànd ak ñëpp ñëpp ci dans la paix dans la construction du Sénégal xëccoo amul bu fekkee ne ñi ci nekk ñëpp Sénégal kese leen safal defe naa ne war nañ mën a toog dialoguer génne solution. seen xel nekkul ci soppeeku doon parti politique un jour. mën na nekk waaw ñu ngi ci doon xalaat mais pour la moment mouvement citoyen lañ. mouvement citoyen bu ngeen nammee dem élection nu mu nar a demee. ah bu boobaa nga xam rek bu boobaa rek danañ dangeen ci xam dara. bu ñu namee dem élection boobu boobu da ngeen ci xam dara waaye pour le moment daal ñu ngi ci suñu mouvement citoyen. Mm. est-ce que am na élection yu ngeen jot a dem balaa Sénégal Nouveau di taxaw à travers. Euh, mouvement citoyen pour le développement du Sénégal. waaw yooyu amoon na ay élection yu ñu demoon euh, élection locale man demoon naa élection locale. ci sama dëkk ba Kaolack. waaw demoon naa ci def naa ñaari yoon élection locale. yan résultat nga fa jëlee. waaw bu bi moom wax dëgg yàlla ba ma demalee suma bopp man kenn. waaw euh, amoon naa ci ay conseil ba nekkoon président commission so euh, santé. Hmm. waaw benn euh, ville bu Kaolack. bu kaw bu Kaolack waaw. demoon naa tam législative ak yeneen yeneen parti hmm. waaye boobu ba léegi nag Sénégal nouveau moom demagul fenn. waaw Sénégal nouveau mi ngi jóg juddu mais comme moom mooy mouvement citoyen pour le développement du Sénégal. ba léegi daal demaguñ feneen. Hmm. kon est-ce que politiquement taxaw ngeen docteur. ñun de politiquement kañ taxaw nañ ndax politique bu baax la ñuy def man xam nga lu ngeen di ooyee politiquement. politiquement mooy mbooloo mi. mbooloo mi taxaw na. stru ñu ngi structuré bu baax. kay bañ a pare pare nañ kay. am ngeen ñaata at tey concrètement. mouvement bi ba léegi de boo ko saytoo léegi ay 15 ans de na 15 ans ñu ngi ci ba léegi waaw te defe naa ni loolu moom. am nañ capital de sympathie bu bu rëy rëy li ci des nag mooy eh, waxtaan rek dialogue rek dialogue moom yaakaar naa ni moom kenn gënuñoo taxaw. alors euh, docteur Rose nii tey soo amoon looy dénk kilifa yi nekk ci bopp réew mi lan lay def. kilifa yi nekk ci bopp réew mi xanaa li ma leen doon dénk rek mooy ñu gën a taxawu askan wi mooy ñu gën a jublu ci li nga xam bëgg-bëgg askan wi. Eh, geestu tamit bu baax ndaw yeeg jigéen ñi eh, taxaw leen dans le progrès social képp ku nekk ca ca ca àll yu gën a sori am même condition ki ñu nekk fii ndax boo demee ci àll bi léeg-léeg da gis ñoo xam ne ndox amu fa courant amu fa li ma leen di dénk mooy loolu l'égalité des chances ku nekk ak progrès social fu nekk ñu taxaw fa askan wi ba nga xam ne dana dana yëg boppam dana yëg na ñu ngi koy taxaw teg leen ci yoon wu jub aussi te di ñaan yàlla aussi ñu moytu musiba ñu ñaan yàlla ñu ñaan kilifa yi tàmbalee ci kilifa dina yoo xam ne mu suñu bàyyi seen koros yi ñu ngi ci ba léegi ñu gën a ñaan kilifa yi nekk ci dëkk bi tamit ñu gën leen ñaax jàmm wàcc ci réew mi ci wàllu politique alors sa message xëy na ci ci askan wi mbala ñuy jeexal. ah mooy message bi ma la wax rek nañu jóg rek nañu liggéey suñ dëkk bi nañ ñaan yàlla rek vraiment jàmm nañ euh, xam ni Sénégal ñun ñëpp a ko bokk. ñi fi nekk ñëpp di xëccoo ay sénégalais lañ ku ci nekk am na lu mu fi liggéey dëgg yàlla duma critiquer kenn. ñun ñëpp ay sénégalais lañ te yaakaar naa ne ñun ñëpp li ñu animé mooy Sénégal kon nag nañ ko liggéey ci jàmm ak salaam ka war a dem élection dem élection ka war a falu falu ci jàmm ak salaam ñu defar Sénégal loolu moo doon suma message. jërëjëf docteur Rose Wardini amoon nañu mbégte dalal la tey moom euh, gynécologue la waaye bàyyi clinique yeeg hôpitaux yi dugg ci langue politique bi taxawaloon mouvement citoyen pour la développement du Sénégal mi ñu ngénte keroog def ko mouvement Sénégal nouveau loolu la ñu doon waxtaanee lu waral soppeeku bi euh, mais aussi lan la ci askan wi mun a xaar ci seen émission démb ak tey euh, kon mbokk yi fi la ñuy yem tey di leen gërëm ci ànd beeg ñun Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaan keneen ci leneen ñu yendoog jàmm